nga ku ci mel ni Racky Racky nuyu naa la dalal ak jàmm ci plateau bi naka suba si. ñu bàyyi la nuyu ak mbokk yi. waaw maa ngi lay fay di la wax jumaa bu baax ak. jumaa bu baax di ko wax ah, suñu téléspectateurs yi di nuyu ñoo bokkal plateau. Papa Gré ak Ndeye Petaw ma bàyyi la rek nga woyal dalal ak jàmm Racky euh, Petaw nuyu nañ la. nuyu naa la Aïcha. naka suba si. sant a baax. alhamdulilah noo def. sant rek. yaa ngi ci jàmm. Mhm. macha allah yal yàlla xeeb doole. amiin waay ay ca mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis et seen deuxième partie Allô Sénégal ñu di leen seen rubrique bi nga xam mooy xew-xew wala fait divers wala lépp loo xam ne ay kaala réew ñu daal daf koy ànd ak yéen di nuyu les chers téléspectateurs ba noppi di ñu dajal nuyu sama naataango yu bokkal plateau bi Pape Malick. Mm. maa ngi lay ziar baax a baax Grégoire moom maa ngi koy nuyu ah xarak yi moom itam maa ngi koy ziar a baax madame Camara tey dangaa def lu scolarita. xaw mm. <laughs> ma def lu scolarita yow <laughs> ñaari pompon yi. <laughs> ñaari la yaa ngi koy seen. lu scolarita maa koy gis maa ngi koy gis déedéet lu scolarita. lu scolarita. yooyu est-ce que mën ah. démb. dal leen ak jàmm alors à comme chaque euh, mardi ak vendredi dañ ci ànd ak Racky Racky tey ci lan ngay focus. alors tey nag à la dafa dem rencontre euh, aujourd'hui de la société. parce que nag temps yi dafa am benn euh, substance bu. baaxul bu jigéen ñi di utiliser. Mhm. surtout ci côté sud bi parce que foofu lay jógee mais euh, pratiquement ça existe presque ci territoire bi yëpp. Mhm. donc jigéen ñi ñu ngi koy utiliser mu commencé def ay ravages damay bàyyi ñu seetaan élément bi ñoo ñu décortiquer ko. ayca la am na bant yamba am na xooxu yamba am na xooxu am na xobu yamba am na xeme mooy xeme bi ñuy cuube xam nga xeme moom ndeysaan dañ ci cumbaay ñu ciy raxas ay karo am na ca am na aussi produit buñ ci def ñu ne ko tokkoroo tokkoroo xaw produit lan la moom la ñuy jaxase te dafa bëri composition ku nekk sa composition parce que léegi ñëpp koy defar jigéen ñi premier jour biñ koy def dangay waccu waccu ba kaaf sa biir bi sànni sa gémmiñ sànni tey boo doon génnee ci population bi ñu ko dul utilise bëriwuñ les quatre-vingt pour cent ñu ngi koy utiliser. li ma ci gën a metti nag mooy temps yi c'est les jeunes filles ñoo koy utiliser ñu leen doon conseiller daal ñu baax te ña koy jaay ma ne ay jaaykatu drogue lañu te ña koy jaay sont pas des jeunes mag ñi nekk ci quartier yi. ñoo koy defar te ñoo koy jaay xale yi te ñu ngi avenir u jeunes yooyu. waaw produit yooyu vraiment ñun dañ koy ñaawlu ko parce que produit yooyu mu ngi indi ay problème yu bare ci jigéen ñi euh, te li tax ñu koy utiliser ba léegi ñu mën ñu ko comprendre mais amul avantage ci santé nit ki parce que ku xam euh, euh, tabac ak xeme di ko jël def ko ci ci ci ci ci ci sëyukaayam. loolu maanaam sëyukaayu jigéen nit ñi li ñu xamul mooy sëyukaayu jigéen saabu sax war ci dugg saabu laa la wax saabu war ci dugg war ñu ko raxas war ñu ko nettoyer day tax jàngoro bu nekk mën ko dal te ku ku xamee ku xam tabac yooyu ay produits yi nga xamante ni la jafe-jafe rek la mën a indil wér-gu-yaramu jigéen waaw def naa ko huit ans sama xarit bi ma ci dugal def na ko douze ans muy tabac boobu ngay wax ñun maire maire bi dëkk Casamance bi mu génnee wax tabaabaa laa xam tabaaba ñun daawuñu wax tabaabaa garab la ñuy wax buñ koy jënd ci meeru soose bi dañuy wax sama doom boo demee ne ko mu jaay ma garab waaw effectivement moom nga wone noonu garab gi noonu la mel dégg nga te ñun biñ ciy dugg man sama xarit bi ci njëkk a dugg def ci 12 ans moom bi mu ciy dugg nee na moom dafa doon teñ ji bi jëkkëram gaañoo muy teñ ji ci la ko benn soose ni ko garab gi boo ko jëlee par en général booy teeñ ji soo paree da ngay amee tànk yu métti ba pare da ngay sol yaram mu ne ko loolu yëpp boo koy booy def garab gi doo sol yaram ba pare doo amee tànk yuy metti barki Cheikhul Khadim moom mu di ko def di ko def di ko def après man ma dem seeti ko ma gis ko mu rajeunir yaramam nekk mu mel ni xale après ma ne koy waaye looy utiliser mu won ma garab gi mu daan ni ma lii laay utiliser mais yow dangaa ëppal de na nga boo bu ma la ci joxee benn takk sooy def tuuti ngay def jour bi ma ko njëkkee def damaa mel ni ku doon ñibbi yomal xëyaam barke Cheikhul Khadim mu ne ma day faj tànk yu metti day raisonner sa yaram tak effectivement loolu mu wax ci garab gi yëpp barke Cheikhul Khadim dëgg la billaay wallaay taala man am naa 45 cinquante lu ma neex laay sol te lu ma sol soo ma gisee boo ma gisee may dem man samay doom bu ñu àndee danga naan seen mag laa te garab gi moo ma ko def néew ma nag garab gi baax na wax dëgg yàlla néew ma garab gi baax na de mais man bàyyiwuma ko ba nii ñuy waxee maire bi wax na ci xeme wax ci lu ne bàyyiwuma ko ba nii mais ñun du pour problème mu góor déedéet bul wax loolu bul wax ne day neexal ak day safal non ñun defee ko loolu itam ñi koy ñi koy ñi ma gis ñi koy utiliser yépp loolu taxu leen cee dugg day wàññi sa yaram man boo ma gisoon dama rëyoon a rëy rëy rëy ba ron garab gi moo ma wàññi beneen bi tànk yu metti doo ko am xaw ma nag garab gi lu tax meeru Casamance génn wax ci moom moo ko xam ndax seen dëkk lay jóge garab gi Casamance la am wala gine amul fii man dama daan paasal sama doom ba somon jox ko junni bu ma ko joxee junni mu jëndal ma junni ma jox ko junni mu paas ci aller retour léegi nag am na fépp ndax dem naa fi Dakar xew bi ma demee bi ma bi ma yóbbaalewu ma ko bi ma koy laajte sama benn umpaañ moo tëb ni ma am naa ko sama poset mu xool posetam li ci am wow su wowee ndox nga ci wis mu tooy mu ñëwaat palaasam mu ne ma après sama benn beneen doomu nijaay ni ma mu ngi jaay fii fii am na fi kër njaago yi ba ma demee fa laa ko jënde dem naa fi ñaari yoon dakaar foofu laa ko jënde ci kër njaago yi fépp la am jigéen ñëpp a ko xam yow moomu di ko wone barke yow Khadim leer na man yaa ngi koy utiliser parce que xale yu ndaw yi dañ koy utiliser loolu moom leer na ma boo ko utiliser wul woon doo ko xam bu leen bëgg bës rek dégg dara rek ku nekk jóg daat ci bëgg a débat affaire bi du noonu affaire bi ji góor ak jigéen taxu koo jóg du affaire de góor ak jigéen tabaaba mi mu ngi toj dëkk bi de. ay Aïcha mu ngi noonu tabaaba lu substance bi ñuy def composition bi nag doy na waar Aïcha parce que composition bi am nga xobu yàmba am nga garabu yàmba. ak grain mère bi nee na am nga. am nga am nga fruit de girofle. am nga xemme. xeme mi dem ci douche. Ah, xeme bi dem ci douche ñu koy defaree tamit saabu wala di ko gome euh, pas gome cuubee yëre. Mm. parce que d'habitude euh, xeme dañ koy cuubee ay mooy cuub yi nii booy def tension voilà dañ koy utiliser. Mm-hmm. donc nag mu nekk loo xamante ne sa commence à faire des ravages parce que d'après le médecin. Mm-hmm. Euh, mën na indi lii di cancer du col de l'utérus indi woon nañ ko fi keroog. Mm-hmm. parce que ñu ngi wax ba tey xamuñu lan mooy cause cancer du col de l'utérus parce que li ñu xam daal ba xam mooy ki nga xamante ni dem na ba tollu ci sëy di sëy mhm. euh, virus boobu ci ku góor ki lay jóge mhm. mais lii nii su fekkee day provoqué aussi li nga xamante ne lii di cancer du col de l'utérus est-ce que bokkul ci cause yi nga ñëwaat ñu ne la ñoom aujourd'hui loolu bi ñu ko doon def c'était mhm. pour les veuves maanaam bu ñu tënjee ba génn vu ko seen tànk yi da doon metti ak yooyu noonu mag ñi looloo taxoon ñu ko doon utiliser ou bien ñi nga xamante ne amuñu jëkkër mooy ñi nga xamante ne seen jëkkër dafa génn àdduna bu bu ñu amee envie sëy ñu jël loolu après day euh, soulage seen euh, désir sexuel c'était pour ça pour certaines alors léegi nag bu fekkee ni loolu dañ koy jëfandikoo muy indi lu mel ni cancer du col de l'utérus wala muy indi fistule parce que fistule euh, d'habitude bu ñu ko doon dégg c'était pour les fii yi nga xamante ne dañoo tolluwul ci âge u sëy ñuy sëy bu ñu accoucher ba pare après fu ñu toog dañuy senn mm-hmm. loolu mooy fistule donc lii tamit bu demee ba di ko causer donc ça devient grave pour d'autres yeneen jigéen ñi nee nañ bi ñu koy jël c'est pour rajeunir maanaam du ñu màgget wala pour perte de poids parce que boo seetaanee témoignage bi loolu la ciy expliquer. Mhm. moom koy waat na waat yu métti. tu vois donc mu nekk loo xamante on dit que côté sud bi la nekk alors que dafa propagé wu ci territoire Sénégal gi yëpp. parce que ki doon témoigner euh, Touba la nekk donc moom da doon yóbbante fii ci Dakar aussi maa ngi gis yeneen témoignage yoo xamante ne meeru njaago yi nee nañ ñoom ñoo koy jaay comme l'a si bien dit la dame <laughs> Gré <laughs> content <laughs> voilà tu vois alors su fekkee composition bi dafa am drogue fan la ñuy jëlee drogue yamba boobu foofu noonu alors je me dis que kii tux yamba kii jaay yamba ak kii defar lii ñoom ñoo yam àtte parce que légalul muy benn loolu suñu suñu euh, njiit yi war nañ ci war nañ ci gëstuwaat bu baax alors euh, côté sanitaire ce ne pas conseillé parce que médecin bi nee nañu euh, conseil wu ñu benn jigéen di utiliser li ni mel déjà kanamu jigéen saabu ci boppam bi ñuy sangoo sax waru ci dem waxuma la nga ciy dugal leneen loo xamante ne waru fa dem alors sensibilisation bi nag je pense que ñun ñoo ko war a njëkkee ñun ñun médias yi ay mm. voilà Ndeye kon li yàgg na. ndey. li ci gën a bon mooy jeune fille yi léegi ñoom ñoo ko jël. jommi amul heure de. parce que ñi ko doon utiliser c'était les femmes mariées veuves. maanaam si femmes mariées ñoo veuve mooy seen jëkkër ñi nga xam ne dañoo gaañoo. bu ñu tënjee ba pare. waaw waaw voilà ñoo daan jël xeme di ko def seen kanam. ok xeme bi ñu raxas du. non c'est xam nga xeme bi il faut ñuy jël sûrement dañ koy parce que xeme boo ko laalee say day ko boole ko xeme ñu ko def ko sa kanam man kay loolu rek mu ma def kaat. Ah, baax na. base bi karité la dañ koy def sous forme d'ovule nga xamante ni utilisation bi day am gré lan moo lay yéem. bon man je suis sidéré parce que Aïcha maanaam santé amul prix et quand on voit aujourd'hui certaines pratiques yoo xam ne tey dañ koy def pour lan xam nga euh, le mardi suñu confrère yu bés bi dañ ci def benn dossier et dans le dossier on voit des femmes dire que dañ koy jël comme un second mari mm-hmm. donc ça veut dire que ñoom soxlaatuñu am ngeen concurrent <laughs> l'autre chose moom mooy les bàjjenu gox nee nañ sëy yi ñu ngi tas lii tas sëy yi moom mooy à cause de ce produit là les femmes ñu kenn léegi si ñaari feebar ñoom ñoo a jaaxal comment ñoom la ñuy def ba procurer wu tey mélange bi am bi ñu boole koo xeme bi lool benn la. Mhm. de deux moom mooy ñoom ñuy jaay ñoom ñu ngi ñu ngi rey nit ñi man je peux pas comprendre tey dans une société boo xam ne c'est société qui se dit euh, société normale que ñuy utiliser certaines choses et puis au vu au su de tout le monde. Hmm. ñuy toog di seetaan donc tey. xëy na fii la ñu ko wax mais peut-être yàgg nañu ko utiliser am na ci nag ñoo xam ne bu ñu ko utiliser dañ koy utiliser ci sens bu baax bi mais ñeneen ñi aussi dañ ko utiliser pour leneen mais c'est grave quand on entend tey cette dame dire euh, lii dama koy utiliser ci nii ak nii et puis ban prix lañ koy amee. Mm-hmm. deux francs. 200 francs nga dégg rakk yi di wax. Mm-hmm. nga rey sa bopp ci lan fa nga koy dugal xamuloo ne am na benn effet bu mu fa mën a am certes que boo ko amee voilà di nga nekk fa bëgg a nekk loolu la ñu Euh, lim la mën a jural moom mooy wax ci ëllëg donc da ciy baax tam ñu xam ne war nañu leen boole àtte ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay yàmba ñi nga xam ne ñoom ñooy tey euh, di faat bakkan parce que lii tey mën nga koo jël bu fekkente ni sa yaram àttana ko am na yeneen conséquences yoo xam ne mën na la koo jural parce que on ne sait pas mën na la jural tey ay cancer comme ni mu ko wax mais aussi mën na dem ba faat sa bakkan kenn xamul parce que mhm. drogue drogue la. Mhm. donc tey mhm. mën naa leen considérer comme ay drogué. donc il faut bien sûr qu'on revoie tam li nga xam moom mooy produit bi fan lañ koy jëlee. ak ñan ñoo koy defar di ko tasaare. produit baa ngi ci réew mi. Ah, am na si c' est c' na pratique yoo xamante ne boo comme que les gens en parlent. Euh, ñu jóg waaye peut autorité xool ma xam na lañ mën a def ba interdire ko su fekkee dafay def ay ravage comme nga wax nga dafay andi cancer ak yeneen yu ni mel ça dire que bon c'est dangereux mhm. parce que nit moom loo utiliser yaram normalement médecin moom moo la ko war a prescrire mais fekkee prescrire dara ngay def ay yoo xam sous prétexte que euh, bon daf lay jox yenn plaisir yi bon pour man loolu c'est voilà c'est c'est dommage ah euh, ñu bàyyi la nga conclure <laughs> foofu tu sais au delà ni muy manifesté wu maanaam boo ko jëlee ci dois da ngay war a allongé wu 30 minutes après da ngay am da ngay miir di wàccu am na sax ñoo xamante dañ ciy xam donc tu vois ampleur euh, produits boobu noonu su fekkee ni kyste lay faj wala hémorroïde wala euh, comme euh, ni nga ko waxee. je pré je pense que hôpital bi pour loolu la. Mhm. nañ fa dem fajoo. Mhm. ñu arrêté bu dee yaram buy metti wala tànk yu metti metti aussi il des orthopédistes qui sont la mhm. attitrés pour cela donc ñoom dañoo amul droit sax defar. ba di ba voilà ba di jaay. je pense que su fekkee tamit dafa am fenn foo xamante ne dañu fay jëndee yàmbaa pour presque diw bopp yi je pense que c'est légalisé pour ñenn ñi nga xamante ne dañuy defar ay diw bopp à base de yamba on on on en voit partout ici ci yenn boutique yi je sais na la ñuy am wala dañ dañ leen di autoriser pour jaay leen su fekkee ñoom tamit ci autorisation boobu lañuy amee pour mën a dem composition boobu je pense qu'il est temps nag ñiy jaay wala nguur gi boog jéem a xool na ñuy canaliser loolu encore une fois sensibiliser aux dames que kanamu jigéen leneen waru ci dem lu dul ndox wala nga gisee rek def ci coton à mois que nga dem ci médecin am infection ñu bind la ay ovule wala yenn traitement yi nga def ko ci ngir yàlla arrêtez sa produit c'est pas bien pour vous voilà produit bi nu mu tudd tabaaba. tabaaba tabaaba ngi ko tuddee woon. <laughs> tabaaba rek. xeetu drogue la rek xeetu addiction lii. yàlla e na yàlla def jàmm donc voilà je pense que le message est est important nañu nañu bàyyi di foowee ak li nga xamante ni moo di suñu sante waa am na ñu nga xamante ni bëgg nañ santé te amuñu ko yow boo ko amee fonk ko 200 francs bu mu tax nga nga nga yàq sa sa àddina pour rien du tout merci beaucoup Racky ñu jaajëfal la bu baax a baax euh, Aïcha góor ñi ñoo ñoo ëpp gum jigéen ñi est que tamit léegi nag góor ñi am problème ndax dañoo am concurrence man loolu ma ko déggee ni kontaanee ñu ne góor ñi ñoo ëpp jigéen ñi instant bi waa du wujje bi ngay daw léegi léegi <laughs>